am ay xaritu magistrat di waxtaan ak ñoom lu fi waay def te jaaduwul yow soo toogee wéet ak sa bopp xam nga ni jaaduwul juge bi ñu jox dossier Pape Alé Niang avocat yi dañ ma ne gis nga am na juge yoo xam ne bu ñu leen ko joxoon jour boobu Pape Alé Niang day ñibbi këram kuñ fi bëgg a def yóbbu instruction juge boobu lañ koy jox kuñ fi bëgg a yóbbu instruction ñaar ba ñetti juge dañ koy jox def leen pression ne yóbbul instruction ba pare invoqué ay yoo xam ne diffusion de fausse nouvelle ak yu mel noonu nga xam ne obligatoirement mandat de dépôt la te Pape Alé lay su dee loolu la wax lañ ko toppee man maa ko njëkk wax conférence de presse si saa jël si wuñ ma maa ko wax man maa njëkk wax te yor naa document yi li tax duñ ma jël si kon li xew ci réew mi na ñëpp delloo si seen xel réew mi ñoo ko bokk de ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ba pare yow toog dem tànk sa kër. lekk sa ceebu jën naan sa ataaya jël père de famille yóbbu ko prison xañ ko ay doomam xañ ko njabootam loolu ba kañ lay wéy loolu tôt ou tard dina jur ci réew mi loo xam ne ah mara day taali menacé wuñu nag dañuy dañuy araftu pendant qu'il est temps kenn ëppalewul sa morom ci ci réew mi nekk naa juge taxul nga gën nit ñi sénégalais nga ñuy sénégalais applique la loi jàmm ne ñooy mais soo bàyyee loi dugg ci yeneen fit na ngay andi ci réew mi te fitna juge rey na fi quatorze nit mooy manipulation yu ñàkk fayda yi Serigne Bassirou Gueye doon def rey na fi quatorze nit bu ñu fàtte yooyu au nom de quoi kon bu loolu weesoo nag de ki wax na ko léegi Aïda man damay féliciter suñuy député parce que war nañu fexe ba lii priorité réew mi bu ñu ko fàtte mukk parce que dañu jàkkaarloog ñoo xam ne dañoo lajj ba ñëpp xam ne lajj nañu mën yëpp fenn la mooy allumer des contre-feux pour nasaxal xelu sénégalais yi ñu nekk ci ay détails commenter ay détails suba ak ngoon fàtte nag lan mooy problème yi lan moo tax sénégalais yi tey ndaw ñi amuñu liggéey lan moo tax mbay mi doxul lan moo tax càmm gi doxul lan moo tax napp gi doxul lan moo tax amuñu ay industrie lan moo tax coût de la vie toll fi mu toll nii loolu rek moo war a doon tey suñu farita fii ci réew mi